rek jox ko on sait jamais donc loolu rek daal lañ dul cautionné mais jàmbaar la donc dañuy dem ci Prince Fadiga Pape Ousmane Prince Fadiga xale la boo xam ne ñu bari ñu ngi ko doon gis ci euh, réseau social bi li taxoon mu siiw bokk na ci ab euh, kii boo xam ne defoon na ko fi benn mariage boo xam ne genre bat buzz la su ma juumul ngir mën a euh, tourner benn clipam donc mariage am boobu defoon na fi buzz donc dañu xëy rek barke dem yéen nañu Prince wéeji na boroomam ay xaritam ne feebarul dara jotu ko dara mettiwu ko feeñalul dara luy firnde ni nàngam ñu bari itam di wax dafa xaru ñi naan est-ce que dee na lu nekk mu ngi ci génn Pape Ousmane euh, yan kii nga ñu jox ci euh, côté boobu ci deewu prince bi waaw mais comme ñëpp ah, man ba ma ko yégee daf ma jële kaw avant prince Fadiga bi sax Peter Morgan Peter Morgan bu Morgan Heritage waay waay benn ni moom aussi hmm. macha allah hmm. képp kuy fil reggae parce que hmm. man émission bi ma doon animé wal fajiri mi ngi tudd Reggae Vibes man la ak euh, Dret Amala Doucouré ak Ras Naroun fii Sénégal ñun ñett rek fi def reggae Ras Naroun waaw Ras Naroun euh, aussi ba ma déggee ñu ni Peter Morgan dem na ça m'a ma def choc parce que Peter Morgan ñëpp xam nañ woyam boobu tel mi how come xam nga. mu nekk un grand chanteur boo xamante ni natif mi ngi juddoo fële Jamaïca. Euh, am 46 ans net. fala décédé mi ngi décédé aux États-Unis mu nekk loo xamante ni bett na képp kuy reggae fii ci àdduna bi rek. ñu xëy la lendemain di jooy Peter Morgan noppi wuñu ñu ñu waat suñu doom ji euh, Prince Fadiga génn na àdduna. man nag dafa nekk xale boo xamante ni yàlla dafa def xam naa ko. Euh, dañ daan daje kër Cheikh Baara yi def gis fa lañ daan dajee Euh, jour bi ñu fa njëkkee daje ñu toog waxtaan lu bëree bëri bëri. mu ne ma hmm. dama bëggoon nag nga resal ma sama management. ma ne ko yow li ma jaaxal ci yow booy da ngaa dooj. yow nan ngay defee mariage. ki nga marié mën na la yaay ma noo xam nga rek mu nekk booy bu neex daal booy boo xamante da ngay wax ak moom. ci sànq ni kii xale la. Hmm. da ngay xamante ni kii xale la. Hmm. mais dafay osé. ba pare yoroon deux portables yu luxe ma ne ko yow booy yow yow yow ak sa portable bi rek. am ñu ne ay booy jour boobu ñoo jegeendoo kër cheikh bi duggandoo oto ñëwandoo ba buntu Pikine ñu wàcc mu ne ma nag man de li ma bëgg mooy nga manager ma ma ne ko ah mun waa ma ne ko man de booy dama amul jot waaw jot ma wan li ngay woy sax mu jot ma tegal ma ne ko ah booy yow sa way yi dafa des a ñor de yow da nga war a gën a euh, dëgëral baat bi quoi ñii tooñante maa moom franchement mu nekk xale boo xamante ni xale bu xale bu am am ñam la ba pare da koy gis rek bëgg ko parce que mm-hmm. il est élégant solo di check down solo di tef ay affaire yoo xamante ni da ngay gis comme booy yi ni ñuy defee nii dafa correct daal dafa correct xoolal tuba yi muy sol doo gis mu mu toog kii wàcce te da ngay xool kanam bi xam ni kii xale xale bu ndaw la bu ma déggee ñu ni ma prince Fadiga gaañ na ma ne waaw lu ngeen di wax ni prince Fadiga kii lu ko daloon xaa dafa feebaroon ñu ma prince Fadiga daal dara daal ko woon am na ñoo xamante ne nee nañ romb na leen léegi léegi léegi ñu toog ba mu yàgg rek dégg prince Fadiga génn na àdduna ñoom fa lañ ci toll ma jéem a def li nga xamante ni gawuma ko est-ce que du buzz ma jël numéro téléphone ma woote ñu ne ma ki ngay woo mënoo ko jot ma dugg whatsapp am xool heure bi nga xamante ni laa ko ci gis mu connecté mu mboof ay presque ay heure te la mujj connecté ma ne ah kon affaire yi commencé na ki ma daw dugg youtube tàppe turam ma gis ñu teg turam photom teg ay jooy defal affaire yi quoi affaire yu jooy yooyu ma dawaat facebook ma fekkaat fa loolu ma ne kon c'est parce que Facebook ak yooyu du ñu def lii te du te du nekk loo xamante ni du nekk dëgg la mu nekk nag choc boo xamante ni man moom la ma def pour te dire mm-hmm. que moom dafa accroché woon ci man mm-hmm. tellement tellement bëgguma mm-hmm. di ma di ma topp fu mu ne audio bi nga xamante ni moom la ma mujjee yónnee moom moom ci boppam ci kàddoom mi ngi nii yokk ko dégg dégg mi ngi nii dégg lii Ah, man ngi lii la ma mujj avant. d'accord malheureusement tontuwuma ko. ba ma déggee audio ma ne ay waay sama booy. pour pour man comme affaire de management bi la may wax rek ma ne si presse bi nga may woo di ma yónnee message di ma di ma dóor quoi. malheureusement tontuwuma ko mu nekk lu may regretté nag. parce que waroon naa ko tontu ba ma ko tegalee dem sama sœur dafa ne ma kon tontu woo ko ma ne ko tontuwuma ko. ça m'a mal. donc dama koy ñaanal yàlla mu xare ko àjjuna parce que fukki at ak juróom benn rek la amoon seize ans seize ans la dem mhm. amagul sax atu majeur fukki at ak juróom benn li nga koy gis ni yëpp boo xoolee kanam yi xam ne ki ino innocent la innocent la man père la ma daan waxee bu dajee mu naan ma père père père père père maan ko mhm. fils fils fils parce que man man naa nekk papaam mhm. donc nag maa ngi koy ñaanal yàlla mu xare ko àjjana àdduna moom mi ngi nii rek toujours ak ay surprise am yaakaar naa c'est émouvant quand même lu doy waar la xale bi fekk na ma pratiquement feeling Dakar ba mu fay nekk am émission bu mu fa doon tourner mais comme li Pape Ousmane wax rek dafa correct boo ko xoolee rek da ngay xam ne kii il est très correct mais quand même Sénégal nag mooy dëkk boo xam ne bii lu xew faaw ñu uti polémique. foog ñu sànni si seen seen seen korom ko safa safa saf te nit Alioune génn àdduna nit dafa nekk loo xamante lu sensible la. ndax mhm. boo ko njottee sa bopp rek mu dal sa famille wala mu dal sa frère wala mu dal sa sœur doo am sax yéene ñu wax ko dara loo xamante ne lu ñaaw la mais dañoo tàmm léegi ku génn àdduna dinañ la wutal luñ la tegal sa côté mais nit ki xamoo lan moo ko rey yàlla suñu borom du jékki-jékki soxla ni jël ko te dara du ko jot am na ñoo xamante ne dañuy julli alune sëlman euh, génn àdduna am na ñoo xamante ne dañuy toog waxtaan ak seen njaboot balaa nga leen di tontu yàlla jëlee leen fa mais boobaa dañoo fàtte ñu xanaa ñoo fàtte ni yàlla moom mooy jëlaate yàlla mi mi njëkk sàkk li nga xamante ni moom dee la njëkk bind avant li nga xamante ni moo di judd ku bañ dee kañ bul judd mhm. dafa am yenn yoo xamante ne buñ koy teg Alioune dañuy fàtte ni ñun xanaa yàlla dafa am buñ demee ba naan lan moo ko rey ba ñuy teg naan dafa xaru am na yoo xamante ne Alioune bu la leeru bu ci wax mhm. sénégalais nag dafa maanduwul bëgg nañ kaa bëgg nañ topp loo xamante ni seen yoon nekku ci te ñi koy def la plupart yoon nañ seen paan boo xamante ni mën nañ koo lijjanti nit nag doo yor sa paan bëgg koo lijjanti bëgg lijjanti li nga xamante ne mooy soowu jàmbur dafa am yenn yoo xamante ni pa euh, pa Ousmane dañ cee commencé ñun sénégalais yi esprit boobu dañoo war a dindi suñu bopp lii moo ñu gën a tardé si àdduna cas sur cas cas sur cas nit day génn àdduna sax ñu jëm la ko xooloon lan moo ko rey waaw boo demee ba tollu foofu ka yow jàppal sa bopp bu bul amati soxla ba ñaan suñu borom nga jàppal sa bopp yow yegg nga yenn makkaamay nit bu deewee rek yow waroo mën a xalaat ni yow kii suñu borom da koo soxla jël Mhm. dañ koy dañuy naan kañ li ñuy jooy mooy ndaw la génne na àdduna foo xamante ne mënoon na réaliser li nga xamante ne mooy ay ay rêve am yegg foo xamante ne fa la bëggoon a yegg waaye yàlla bu soxlaa ñëppay ñàkk tey yàlla jël na ñu bëri ñoo xamante ni seen i njaboot a ngi fii ni am na ñoo xamante ni deux ans kese la ñuy am yàlla jël leen waa léegi ñooñu an seen i waajur mais tey jii nii nga jàpp nit ki génn àdduna nga naan dafa xaru malaise ko dal kii dara jotu ko ba nit ñi naan est-ce que du bad buzz bu ñuy dem nag bay def ay bad buzz si ay dee Pa Ousmane war nañ xoolaat bad buzz wu réewum Sénégal bu ñu demee ba Sénégal bu nit gaañoo sax ñu ne bad buzz la maanaam est-ce que génneewul dara kon am na fu mu yegg. Mhm. waaye nit ki génn àdduna kañ yàlla suñu borom bu soxlaa day jël. mais léegi Sénégal li ma la ko wax rek cas sur cas topp ay malaise topp ay da ngay gis koo xamante ne dëj ba sax ci dëj bi la nekk naan la may ma kaane ndax ngoon day am cere wala mbaxal yàpp bi am na mel ni dañoo fàtte ni yàlla suñu borom moom moo leen sàkk dëj yi dañ see nekk léegi sax di jëw maanaam esprit sénégale yi man léegi ñoom ñoo ma jaaxal nit da nga daan gis bu njëkk ba bu nit gaañuwaan da ngay am tiitaange goo xamante ne boo defoon benn bàkkaar sax da ngay gis day tegle semaine boobu yëpp da koy julli pour nga xamante ne day ñaan yàlla suñu borom pour mu jéggal ko ndax dee doonoon na loo xamante ni lu ba tey dafa metti mais lu ñu ragaloon la mais léegi bu ñu demee ba léegi nga xamante ne ragalatuñ dee nit day dee léegi ñu jël ko koleel ko dara dafa malaise wala lii moo ko rey wala lii moo ko rey te yow fekkee woo mais nag Alioune kii dañoo laaj nag ñu autopsie ko Ah. dañoo dafa laaj ñu autopsie ndax maanaam euh, wax yi si jug yëpp. wax ji daa bari daal wax ji dafa bari. laaj nañu autopsie xool lan moo ko rey maanaam comme ñoom sénégalais ni ñu ko bëggee na tey jii nii bu ñu jëlee pata patamee noonu rek denc comme niñ ko def ni niñ koy defee ci yeneen ni dañ naan am na lu xew loo xamante ne te yàlla mën na jël nit koo xamante ne mën na laa romb léegi léegi nii dugg si biir néegam yàlla jël ko. Hmm. mais fam yoo xamante ne buñ ci attardé wu buñ ci nekk di wax yàlla suñu borom bu soxlaa ñëppay ñàkk. Mhm. sénégalais nañ delloo si waat seen xel. Mhm. c'est important Kurita Sarr. ci baatu inna lillahi wa di ñaan yàlla yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana firdawsi ndax déewee na ndaw waaye tamit euh, yal nañu yàlla musal si cat yàlla musal si cat yal nañu yàlla musal si cat wallaay c'est important xam nga lu ñuy naan cat tikul mhm. sax ba bant waxatuma la ak nit. moo tax mustu si cat sa très important. xam nga tey jeunes yi nga xamante ne tey ñoom ñoo nekk ci TikTok bi ak fépp fu mu doon duñu weddi ni yàlla mooy rey waaye tamit moytu cat dafa doon loo xamante ne dafa baax ndax loolu yónnent bi sax da koo wax. kon nag nañuy moytu cat bu baax a baax a baax a baax a baax ndax tey jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk si TikTok bi ñiy dem bëri na lool. xam nga TikTok nekk na loo xamante ne ñi la fay gis c'est des milliers de personnes xamoo ban bët moo lay xool ak ban bët moo la dul xool. tey ñun ñii rek nekk ci écran bi tey ñu bari ñoo ñuy seetaan moo tax lu ñuy mësal rek mooy cat cat jigul kenn ndax TikTok bi gis nañ tey ay xale yu bari dem nañ prince mii xanaa da cee mujj waaye xale yu bari dem nañ booy xool auparavant da nga daan gis deewu ndaw daawul gaaw. Mm-hmm. dem nañ ba à l'extérieur xale bu deewee dañuy naan c'est anormal la moo ko war a mën a rey. Mm-hmm. moo tax Sénégal tamit dañoo euh, tàmm benn affaire mooy nit day génn àdduna rek ci saa si ñu daal di lay denc des fois nit mën na xam sax. Mm-hmm. te fekk deewul de. loolu tamit jar na jar bàyyi xel. <laughs> moo tax mu ne. waaye Paa Ousmane wëykat. Paa wëykat dafa wëy lépp. gis nga bu leen gaaw a suul boobu noonu jamono jii dañ ko war a indiwaat sénégalais dafa gaaw a suul lool sax waaye tamit di def ay autopsie baax na ci man moo tax tubaab bi lu mu ñu rawee dafa bëri nit bu deewee lu ñuy njëkk def mooy dëpp autopsie fol la moo ko rey hmm. c'est très important mais ñun Sénégal peut-être loolu dañ ci xaw a tardé wala des fois sax mën nañ la ne dee na ba ñu yóbbu la hopital euh, ñu soog a def autopsie wala dara mais nit bu deewee ci saa si war nañ def autopsie xool lu ko rey. ndax tey gis nañ ñu bëri ñu leen rey tey maanaam ñoo xamante ne bañ defee autopsie boo xoolee yeneen pays dañuy naan diwkat ba mu demee ci anniversaire am dañ ko empoisonné ak yeneen ak yeneen. d'accord waaye lii di gaaw a suul ak ñàkk bañ a def autopsie war nañ cee bàyyi xel waaye tam jeunes yi ñu bàyyaat xel ni gis nga siiw du jàmmi boroom am na ñoo xamante ne dañ lay dañ lay wax naan la man bëgguma lu dul siiw. waaye boo demee ba ci hmm. biir di ngay xam ne siiw baaxul hmm. waaye tamit nañuy muslu di fonk waxtu julli tamit c'est très important di muslu bu baax a baax hmm. luñ ci mën a wax daal xam nga dee bu xasee ba am rek du ñu yëkkati yenn kàddu yi waaye lu ñu mën mooy yàlla na ko yàlla jéggal rek ñu ñaanal ko parce que ay ñaan la gën a soxla sa yenn wax yi kon yàlla na ko yàlla yërëm xare